tey ñu fas leen yéene an dell xikma bu amati solo te mooy wéyale leenu tàmbaloon fan yi ci alhimmatul aaliya te mooy yitte ju kawe te ñu waxoon ne Sëriñ Tuubaa loolu la taxawalee yoon wi ci ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wa ah, képp koo xam ne ni itam danga aju ci sëriñ bi sa sa yitte war naa kawe ngir roye ko ko ndax moom de yoonu yàlla ah, yitteem ju kawe may na ko kenn jiituwu ko ci donte eh, ba lislaam sosoo yàgg na ak bi muy ñëw ci zaahir waaye itam ji kawe tax na mu dem ba bindal boppam na yoonu yàlla awma ci nawle wa fi sabilillahi lan ujaara sëriñ bi itam doon koo xam ne nii li ko yàlla dimbalee moom mooy tegg yi ne jaamu yàlla ak liggéeyal yàlla da koo xam te mën ko moo tax bu la fekkee ci yoonu yàlla dalay roy diir bu gàtt mu romb la ba dootoo xam ci moom dara te du umpaleeti ci dara moom Ah, loolu tax na sax bi mu nekkee ci liggéey bi nga xam ci la liggéeyal yàlla ak yonent bi ba am ci lii lépp wax nañ ne eh, moo ko bindal bopp mi sax wax ne dafa dafa taxañ yoon wa gaaye daan jaar di ca sonn di ca yàgg moom da ko taxañ tawaytu tarixal xawmi waqtam tidaahi wali qad xadal xaajaati bi rawdi wal basi tax na bi mu nekkee ca liggéey ba ca Gabon at yam fa def liggéey ba mat na te at yamatut la ko waral moom mooy lépp luñ koy liggéeyloo ci weer ci ay fan yu neew la koy liggéey balaa weer waa mat nee na fa la déggee suñu borom tabaaraka taala ne ko Ahmadou waaw góor ci wolof yi leer dégg naa ci sëriñ Bassirou Mbacke moom sëñ Abdul Karim ñu gën koo xam ci sëriñ Bass xel koom mu ne sëñ Tuubaa dafa wax ne liggéey gi mu doon liggéeyal yàlla ak yonante bi tax na suñu borom tabaaraka taala ne ko cas yëkkati ko daal di koy tàbbal ci biir awliya yi maanaam ci wàllu yi nee na keroog ba ko fa suñu borom yóbboo wàllu yi yëpp dañoo jaaxle. nee na wàllu yi a dégg xarab yëpp dañ ne man haada wàllu yi yafa dégg wolof ne ana kii kumu yu yi yafa dégg pël ne xomba woni nee diir bu gàtt suñu borom yëkkati ma ci seen kaw ma tiim leen ba xamatuñ ci man dara te umpaleetu ma ci ñoom dara moo tax mu ne rafaani rafihu fawqal kurama bilaftixaarin bi mu nan lam tarima darajati taxlo walaysa tanqafit wa man naxaa minal wara xaf diqu fit kon kooku mooy sëriñ bi Euh, bi may wax démbit dem naa bay agsi ci aimal arbaa muy ñeenti jàmbaar yi nga xam ne ni ñoo sos ngir yi nga xam ne ci la jullit ñi tënku wala li ëpp ci jullit ñi muy imaam Malik imaam Shafii yi am wax Abu Hanifa Ahmadu ibnu Hanbal sëñ Tuubaa gis nga li may wax ne da lay roy romb la gis nga dafa wax ne samay sëriñ ci fiq mooy ñeent ñi mooy Malik ak Shafii ak Abu Hanifa ak Ahmadu ibnu waaye gis nga del déglu fa mu mujj ñoom ndax dafa bind ne mashaayixi wal shafii wal xanafi wal xambali waaye gis nga dafa mujj mu ne a ah, ba ma leen defee ay sëriñ it yitte ju tax na ma dema dem ba suñ borom doonuloo ma seen fiq yi ñoom ñeent seen fiq yëpp suñ borom jox ma ko loolu moo tax sëriñ waa darajaam àggoon na ci bu ko neexee mu jëfandikoo meneen ngir sax mu dut Malik ndax day àgg foo xam du ngir dootu ko tënk moo tax ci njaareem wax nañ ne daana julli léeg-léeg di xabdu wala muy sadd la maanaam di teg ay loxoom ci ab wala wàcce ko bu ko ci taalibe yi naree roy mu ne leen bu ngeen gisee may def lu wuuteeg Malick yéen dellu leen ci ndax Malick ngir mu sell la yor loolu la muy tegtale mooy dem na ba euh, féetee ko borom ngir yi moo tax mu bindal boppam ne suñu borom donnaloo na ma seen fiq yi ñoom ñeent warasani fiqal imaami maliki alayhi ridwanul karimil maliki nafaxtani lii kunta bil manafii wa qutta lii fiqal imaami shafii wajjahta li minka munan latifa wa qutta li fiqha abi xanifa yaa xayra qaidin xamidin xumida qad qutta li fiqha al ahmada ah kooku mooy sëriñ bi loolu lépp nag ci yitteem ak jomam te moo ne day njàmbaaram googi ak jomam jooji ak yitteem ju kawe jooji teewut dégg naa daana woolu sëriñ Mbay Jaxate ci Xuru Mbàkke daana wax na wool leen ma Babacar Jaxate mu ñëw soññ sëñ Mbay Jaxate mas na koo woolu mu ñëw ci ndigal dégg naa di ko soññ naa ko wéyal bul geesu boo dee geesu lee nga taxaw kuy daw di geesoo dafay wax lii ma daw bari na laggal te nit balaa jiitu yi kemam xaw a dee xëy jiitu say kem te deewoo wett kat jafe na ku bëgg am lu rafet day muñ te def lu rafet xamal nekkat saxle gàncax goo jiwul jafe na lu ñëpp def ku ko def doo mën lu yem fa ñu yem ku bëgg a raw def lu mbooloo mépp naa jafe na kon nag kooku mooy Serigne waaye mag ñooñu mu ñaroon it yitte ju kawe jooji lañ nekkoon ba lépp luñ mas a def ci lu baax ak lu mu rëy rëy dañuy jàpp ne defuñu dara ku ci masaan a gis sa morom da ngay defe ne la sëñ Tuubaa yor lépp kooka ko jël wëcc la loolu nag yitte ju kawe lay tegtale kon nag ñun nañ leen roy ci yitte jooje ñoo ngi sant mbokki jullit ak mbokki taalibe yi ci jàppale gi ñu jàppale daara Hikmatul Yawmi lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir di sant ñi bokk ci association bi ak ñi ci bokkul nga xam ne ñoom ay bon volonté leen def lu baax rek moo leen yitteel fu ñu ko dégg dañ fa def seen dara ñoo ngi gis eh, addi yi ñu dugal ci numéro Hikmatul Yawmi yi eh, te te ñi jaayante weer wu nañu def dara ñoo koy def ak ñi nga xam ne ni dañuy def rek te yàlla tax di leen xamal ne day eh, seen ñaari téeméer yooyu seen téeméer yi ñeenti téeméer yi moo sos daara ji ñu nekk moo ko indi fii mu toll te fas nañ ko yéenee weesu xam naa balaa yàgg danañ am benn communiqué ñu mm, yëgle boo xam ne ni dañ ci yokk euh, nekkuwaayu daara ji ñu toll loolu la muy tegtale kon mooy ab dox mi ngi am te yàggut ci gàmmu gi rek lañ ko taxawal juróom-ñaari weer wala yooyu ci la ñuy toll di wax ne képp koo xam ne dogal nga sa dara ci Orange Money numéro numéro Hikmatul Yawmi bi wala euh, opérateur bu bees boobu ñuy wax Wave nga yónnee WhatsApp ci numéro Hikma bi wax ne man la diw maa yoon yónnee nangam ngir nangam xam nañ ne sax loolu yitteelu leen ñu xam leen ak li ngeen def waaye dañ koy saytu ci secrétariat bi ngir xam liggéey bi ni muy doxee ngeen yombalal ñu ko. ñoo ngi leen di cant cant goo xam ne nag xam nañ ne sax sunu cant amut solo santuk Serigne Touba ak moom rek am solo yàlla nañ dajeek moom waaye dañ leen di xamal ne rek liggéey bi sel na te noo ngi ciy jot. ku ci bëgg def dara wala nga bëgg cee doon dara wala nga cee xam dara nga woote ci 77 633 77 56.